alxames fanweeri fan ci weeru décembre ci atum 2021 waa FERA amal ndaje mu am solo muy delloo njëkkal la maire Abdou Lahad Ka ñett téeméeri ndaw yi seen liggéey ginnaaw yàlla bu mu àgg tey kii di maire Abdou Lahad Ka la ñu am bisu mbégte ak contacté fas yéene ko delloo njëkkal ñu teewlukat yi bàyyi ko ci Serigne Sidi mu Serigne Cheikhouna. nit koo xam ne boo ko xaaju boo ko yeewoon xaaju guddi su demoon ba tey jii li ko concerné yoonu murid yëpp suñu laa woo suñu laa lijjanti donte mel na moom bu doon dëngul dem ci ak comme jàpp na mën na koo ànd ak moom dana ko ci def te kenn ku ne xam na ne ci aqulaay taala lii may wax ci rajo laa koy wax ndax ci liggéey bi laa bokk su doon xaar wala ay naataango wala ay yëf-yëfaan wala ñi ko booleel liggéey bi yaakaar naa ne liggéey bu dégg si fii ba waa feeraay di sant kon bu yegsee fii bu doon téeméer la dëgg la dinaa moose sant ñëpp ndax suñ tubaa moom lu mu xas teg loxo du deltu gannaaw moo tax mën na caa dëbb jënd jëm mu taxaw ca taxawaayu téeméer waaye ni mu ci doxe moom bu doon juróom fukk képp nga ko ciy doxe yaakaar naa ne fii ni ma waxee yow nemmet dootu am ci dëkk bi kon bu ko gàddoo mel moom dong buñ ko dee nemmet war naa mën a jaadu te nangu na ko nag nangu na ko bu baax ndax mos ñu koo dégg mu tontu mos ñu koo dégg mu leeral mos ñu koo dégg mu jàmbat mos ñu koo dégg mu onkat te moo ne de saa su ne ci lu nit xam ak lu xamut ay bokkam léeg-léeg ñu jànku ndax amu xar ndax lan ay kaddu waaye mooy leen suñ Tuubaa laay liggéeyal gisuma loolu defalaat leen delloo leen ñu ay julli di ko nangu bàyyee ko kilifaam ndax xam nañ ne moom la am xëccoo wuñ koog moom benn yoon. kon sëriñam bu fekkee def na loolu mu ànd ak moom lu jiitu mën naa ne daanaka ci sunu juddu ba tey jii réeroo wuñ ci dara te defalu ko fi lu ko wóom mu dem ba tey yàlla dogal mbir mi toll ci war a jeex ak li coow li bare woon lu ne nu dégg ko mun Mountakha Al Basiir ci boppam xamal boppam ne musuma fa yàqal dara te li ma siq moom leer na nañ sama bopp muy sama mbirum bopp mi ma ko jox di université bi. awma ci lu ma umb te ci laa xamee waat lu ma kenn du jàngal daan ne lii ma ko joxit musuma faa yeble atte leen musu faa it wóolu leen fii atte leen musu ñu maa it sama nawle bu ma bokkal suñ tubaa fii tey ñëw fi man kalaame ma moom kilifa gi ma ko joxit musumaa wax ci moom benn nemmet kon man awma lu ma ciy ñoddeeg lu ma ciy bañ na xam ne daal sant naa te mbir maa ngi noonu saa bàyyi nag damaa xam ci moom meneen mbir mooy jàng nit du ko yombut te nit du ko baloo mbir te amu ci ko leer te ginnaaw sëñ Muntaxa mi nga xamante ni si moom lay déglu tey mooy kilifaam tey xam na ne sëñ Muntaxa lu mu nësër lu ne mooy Serigne Touba te bu dee bëgg ma sëñ Touba dana ci ànd su ñëwee wax ko loolu ab joxoñ la du mën lu delloowaat ko ca ndey ja waaye li ma ne woon a waatal ci alxuraan bu doon lu ñuy joxe wala ñuy tànn wala lu aw kaat bu joxe barke Cheikh Abdou Lahad du fi jaar ndax wóor na ma lim ci jànkonteel bëgg alal mooy ko ko ndax fekk na mu am ko lim ciy bëgg daraja mooy ko ko na mu amutul bu doon moom lu na cee bare bëgg pouvoir wala bëgg information bu ko ci doon dugal weesu na fii ndax am na wërsëg bu mu ko amee. ñetti téeméeri ndaw yi nga xamante ne ñoo doon liggéey ci FERA bi ñu dajee nag ci jotaay bi dañ déglu coordinateur bi génn jiite woon ñu koy wax Sidi kàddu yi mu yëkkati ci kàddu cant ak ngërëm jëme ko ci kii ab maire Abdou Lahad Ka ko sargal ci bés bii nii di ko ñaanal yàlla taxawu ko ci liggéey bi nga xam ni moom la ko Cheikh Mouhamadou mu tax dénk di ko ñaanal euh, confiance am ci moom yàlla jàppale ko ba mu matale liggéey bi ci nu mu gën a rafetee xam nañ ni effort yi muy def ngir régler situation jeunes yi nga xam ni réew mi ñëpp xam nañ ni euh, manque d'emploi pour les jeunes problème la fi kon boo jëlee trois 300 personnes di leen liggéeyloo ñu jógee organiser lii tey lu war la lu rafet la te ñëpp a koy noo te waa dëkk bi yëpp lañ ko defal. ñu ngi lay gërëm di la sant di la ñaanal yàlla la fii te nangul la sa liggéey jërëjëf. ginnaaw kàddu yooyu itam ñu teewlu soxna Kana mi nga xamante ne ci soxna yi la àndal ñoom ñi nga xamante ne ñooy jariñu ci liggéey bi seen i kàddu Kana ñu teewlu ko. monsieur le maire moom moo ñu ko offrir yi nekk Touba pour ñu liggéey mais composé wut kase ay góor am na ay jigéen am na ay mag am na ay ndaw man benn exemple laa bu nekk ci biir parce que def naa samay études. amna samay diplôme mais samay diplôme dama ko jël ranger ko ci tiroir yi parce que awmo won liguey mais monsieur le maire momo offrir opportunité bo xamné amna liguey am ci luma japp en tant que jigen initiative bobu mu def ak opportunité bobu mu ma offrir permettre na ma que samay parents effort bu ñuy def ba payer ma samay études du dem ci poubelle bi dina am lenn lo xamné dina mako jariñ je suis mère de famille Amna ci ainsi que tous les membres de ma famille donc monsieur le maire nous vous disons merci merci et merci Nous, avons wax que ni monsieur le maire Parce que ce affaire bi du parce que su qu'on est taux de chômage bu Touba nekkoon na à 100 M. monsieur le maire réduire nos coûts ba des 5 tous les jeunes que tout bas

ñu ngi récupérer suñu salaire fièrement et dignement aussi donc monsieur maire ñu ngi lay wax maire doyaluñu monsieur le maire doyaluñu maire doyaluñu. ginnaaw jotaay bu am solo bi nga xamante ne ndaw yi feeraa yi amal nañ ko tey alxames fanweeri fan ci weeru décembre ci atam 2021 kaddu cant ak ngërëm yu bàyyi ko ci mboolem askan yu jëm ci kii di maire Abdou Lahad Ka ginnaaw kaddu yooyu nag kii di maire Abdou Lahad Ka ci ne kaddu cant ak kàddu ngërëm jëme ko ci mbooloo mi. di sant personnel bi bu baax a baax a baax waa FERA ndax li waral lii tey seen sargal bi lu baax la waaye day da ngeen a sàmm seen ngor sàmm seen kàddu sàmm seen engagement moo tax ñu agsi fii tey mën nañ bu ñu ñëwee fii tey ñu ma de ma naan 300 la woon 130 yëpp dàq naa leen wala arrêté naa leen tey jii mën naam parce que bu fekkoon du seen engagement. du seeni jikko du seen nangoo liggéey du seeni jub man awma partenaire benn partenaire laa muy ku nangoo liggéey ku nanguute liggéey wala juboo moom moom dafa mel damaa mel ni yow Chine ak Taïwan tam d'accord koo digg ma coor rek boo seetee am na lu nekk suñ diggante bëgg naa dañuy tappale ma lan wala mu nanguute liggéey man ku nanguute liggéey ndax ku nanguute liggéey ku yàlla bind munu koo defal as nit bu bëggee bu bëggee jàmm dafay jub te nagoo liggéey surtout gone gone nag bu amee bu ko yàlla dimbalee ci ñaar yi bu jubee te nagoo liggéey li ci des lépp faw mu dajeeg ndimbal suñu borom lum naqare naqare tey bis dana ñëw mu neex ci moom ndax bis dana ñëw mu am li mu bëgg te ñoom jub nañ jub nañ nangu na liggéey loolu moom ñëpp ku xam Abdoulahat Ka ci secteur privé xam nga ko ku xam Abdoulahat ci public xam nga ko ñoom ñëpp personnel bi loolu mooy samay défaut mooy képp ku jub nangoo liggéey mënumaa ànd ak yow ndax mënumaa liggéey yow ndax man damaa bëgg am jàmm te sama diggan torox liggéey képp fi dox moo te bañ koo yàq sama diggan mucc du jub képp moo tax ñaari yi ni ma yore sa ba teg sama fi ma teg sama bakkan bi sama diine bi sama taalibe bi fi laa ko teg te di ko digal bépp ci yoon boo xam ne yàgg ci réew mi te fas naa dem loolu te nga bàyyi xel ci loolu waaye nag maire Abdoulaye Khaka waxaat nag ñu gën a góorlu xam ne liggéey bu rëy ci kanam te engagé na engagement ngir fas yéene dolli personnel bi wante nag fas yéene jege askan wi ngir lépp loo xamante ne lu ñu yittewoo la ñu taxaw ci taxawaay bu am solo ñaxaat population bi ñu gën a góorlu nag ci def leen war ñu teeluwaat kàddu yi maire Abdoulaye Khaka di leen ñaax rek leen xam ne nag am nañ sa suuf mag naa yéene année bii ñu jëm lii ñu recruté fas naa ci yéene a dolli waat trois cent personnes waaye ñëpp nag ñëpp nag ñu ànd ko liggéey ngir rek ñu gën a takku ànd liggéey ndax li may teg ak programme yi may teg bi ma ko tegee ba semaine bi yëpp ak weer bi yëpp ci la ñu nekk bi ma ko tegee am naa déficitu deux cent trente six personnes te deux cent trente six personnes yooyu danaa ko recruter boole ko ak personnel bi fi nekk ngir ñu mën a matali liggéey ndax secteur yu bëree bëree bari ak ak euh, commission yu bëree bëree bari yoo xam ne danañu ko créer ngir ñu nekk ci liggéey bi ngir sa saytu yitte yi askan wi nga xam ne moom lañ ñu dénk ne nañ ko de nañ ci def luñ man ñu topp ko fenn fu nekk secteur bu nekk lañ ca man ñu jéem ko lañ ca mënul ñu wuti ko loolu laa xam ne euh, dana ñu ko def xale yi nag association yi foo ma delsi ci ñoom ndax man ñooy sama yitte ndax am réew boo ko bëggee defar wala nga bëgg a defar dëkk da ngay fexe ba gone xam boo ko xamee nga fexe ba man su manee nga fexe ba mu def dara ñetti yii soo ko gaa si assuré lee gone wàccoo nga ak moom soo ko assuré lu gone yaa ko gaañ te man bugguma gaañ kenn sëriñ bi dafa lu mat def def na ko sëñ Tuubaa lu mat a def def na ko te lépp ngi fii kon nag nañu góor góorgóorlu ci formation yi waaye nañu góorgóorlu ci fas yi naa liggéey bu kenn xeeb dara ndax nit àdduna nit ku nekk ay pëlier ngay teg boo tegee sa tànk ci sol naturel bi boo ko tegee ci benn pëlier da ngay fexee dem ca ca ca kaw te ku départul doo dem ci kaw kon nag da ngeen fexe ba départ bu kenn xeet ab liggéey bu kenn lii dama ko tayal a def wala dama koo bañ a def ndax loo def am njàng la soo ko mokkalee jàll ci leneen soo ko mokkalee jàll ci leneen te man de feeg maa ngi man wala may xam wala may mën a yëngu maa ngi ak xale yi ngir fas yéene ñu xam fas yéene ñu man fas yéene ñu def dara loolu moo doonoon sama sama option maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp.